yor xol ah xamuñu la ca biir waaye li ñu jot a dégg wax dëgg yàlla tuuti nañu bari ma toog ak kenn nag ci ay xaritu Mario Mbaye muy Mbaye Kouthia ñoom ñaar moom yaakaar naa <laughs> boo doon xamul sax dama yaakaar ni ay mag doom baay lañ ndax seen complicité fas yéene Cheikh bi waxtaan Mbaye maa ngi lay nuyu. Euh, guy gi maa ngi lay fay euh, di nuyu sénégalais yi xam naa nekk na moon nañ ma gëjoon naa génn. Mhm. parce que daa amoon lu ma doon def quoi parce que. géej naa génn parce que damay wax suma waxee lii su ma génnee su ma waxee lii ñu ne lee moo taxoon ma farem ko laay samay kii toog samay boj d' accord Mbaye ah. depuis que nga blessé ba tey dañu gis beneen Mbaye Kouthia ci innovation beneen Mbaye Kouthia ci réglé. Mhm. beneen Mbaye Kouthia ci rafetal liggéeyam. Mhm. lan la ah euh, guy gi sama def soog sama soog bi daf maa jàngal àdduna sama soog bi euh, euh, daf ma daf ma jàngal lu garaaw a garaaw a garaaw waaw sama soog bi découragé woon naa ba waaj dem voyage sax pour toog pour dem France liggéey wala pour Italie mais samay soppe yi nekk France ñoo ne ma toogal toogal Sénégal mm-hmm. lépp na baax mm-hmm. waaw moo tax fan yi incha allah dinaa def voyage bu ndaw génn ñëwaat incha allah. d'accord mm-hmm. Mbaye le cas de Mario Mbaye bi nga seetaan ne ndaxte mu def ay révélation euh, bala maa ñëw ci biir mbay jigéen nan lañ ko war a yoree jigéen. Euh, bëgg naa si soo demee ba takk jigéen nga toog ak moom nekk complicité am surtout nekk nekk complicité di dem ak moom di nduggi nduggi sax soo ko mënee def ko ndeysaan surtout jigéen boo xamante ne dafa populaire dëgg la jigéen boo xamante xam nga populaire dafa doy waar. Mhm. guy gi populaire dafa metti mhm. billaahi wallaahi taalaa populaire dafa metti mhm. oh, euh, jar na nga koy ndugal. jar na ko koy taal añ. jar na jigéen man jigéen dama koy damay damay yërëm jigéen billaahi wallaahi taalaahi. barki Serigne Touba. billaahi sénégalais yi jàpp leen jigéen ñi su ngeen xasee ba takk jabar jàpp leen seen jigéen ñi. jàpp leen seen jigéen yi en tout encore une fois jàpp leen seen jabar yi jàpp leen seen jabar yi. Mhm. parce que parce que ñu bari mbay dañu yaakaar ni jabar boo ko takkee jëfar rek yàlla ak sunnas Muhammad bu xasee ba ñëw sa kër rek. Mhm. Euh, kenn dootu ko reconnaître benn genre mbaam lañ koy def quoi te loolu dafa mhm. am ci sëy aussi. dafa am ci sëy mais xale yu jigéen ñi tamit ñoo war a xoolaat seen bopp xale yi jigéen ñi da ngay gis dañ leen di nax xale yu góor dañ leen di nax billaahi wallaahi tàllaahi xale yu jigéen yi xale yu góor dañ leen di nax dañ leen di nax suñ leen dóoree benn ñaar jeex na waaw suñ leen dajjee première nàmp première deuxième nàmp bàyyi na jeex na ñu ngi seeti leneen est que jigéen tey toll na ci société foo xam ne dañ ko war a takk di ko torturer di ko dóor di ko mbugal non non parce que parce que daa am duñu leen bëgg duñu leen nopp xale yi jigéen góor ñi daa am ñoo xamante ne ay imbécile lañ comprendre nga ay solo par lañ dañ leen dañ dañuy takk jabar takk takk uniquement pour namp benn ñaar bàyyi la jëliwaat keneen. Hmm. daa am si ay kii daa am si ay man sama benn xarit a ngi nii takk na bii mooy dix fois muy takk jabar di bàyyi. Hmm. da lay torturer. donc day am ñoo xam ne dañuy xemmem jigéen. waaw da lay waaw kay day xemmem di seen dañuy xemmem jigéen. Hmm. waaw dañuy xemmem jigéen. waaw te xemeem jigéen c'est grave. le cas la ndaxte ma dégg ko mu ni. demoon na ba dañ ko doon dóor. Mhm. di ko dóor ay matraque. Mhm. man bi ma ko déggee matraque ku koy teg jigéen. Mhm. alors je me dis. Euh, euh, euh, ma wax leen le gars le gars dama ko seetlu si bi ay bët dama koo xool mu nduroog maag naxaatekat mu nduroog maag ku yaroo ak sagoom mu nduroog maag koo xamante ne justul mun roog maag koo xamante ne tolaarewul toléré kiiwul. Hmm, tolérewul waaw tolérewul kiiwul hmm. simple. parce que dama ko dama gis nga su ma la amee su ma damay nekk nit koo xamante su ma jàkkaarloog yow ak téléphone rek su ma la dóoree benn question sa bi naa xam yow la kan. Hmm, waaw parce que tontu yaradiku la ma tontu. ma xam ne kii dafa yaroo ak sa bopp ndaxte ki ko si dugal ki ko dugal si Mario da ko nax da ko waroon a seetlu xool ko xoolaat ko xoolaat ko parce que Mario li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy Mario kenn xamul fu mu jëlee xaalis Mario kenn xamul fu muy fu muy fu muy lu muy liggéey Mario la lay liggéey Mario lan lay liggéey waaw ah, parce que benn bés yaakaar naa mos nga ko laaj benn question ci looy liggéey mais. am ci na benn jour boo xamante ne sénégalais yi dañ ne ma kii lu muy liggéey ma tontu ko ne ko Mario sénégalais yi nee nañ looy liggéey mu ne laaj ko sa baay man du ma moromam man mag laa man kooku si boppam moo moo moo indiscipliné ti indiscipliné. Mhm. man ko foo jëlee xaalis mu naan damaa juddu si xaalis kooku kooku nan lay téye jabar kooku mënul téye jabar. Mhm. koo xamante ne baal boîte. buwaat nelaw yeewu buwaat nelaw yeewu ah kooku kooku kooku du ko baax mm-hmm. Mario si boppam mooy naxaate kat dëgg dëgg dëgg naxaate kat la Mario non ndaxte yàlla na ko yàlla yëkkati yàlla na ko yàlla yëkkati ndaxte mm-hmm. ndaxte sa rongoñ yii billaahi wallaahi taalaahi dina fer maa ngi sa ginnaaw mm-hmm. parce gis gis naa ni jigéen ki ndaxte dañ ko war a jàppale. waaw waaw waaw ndaxte ku ñu war a jàppale la Sénégal yëpp ànd si moom parce que. non non xam nga kañ laa xam ne sax eh, la gars là Mario naxaatekat la maye yi muy maye maye yi muy maye yorul noonu boo boo boo yorul yorul day naxaate sénégalais yi il faut ngeen xam ni il faut ngeen ngeen ngeen ngeen il faut ngeen non xale yu jigéen ñi dama leen yërëm billaahi wallaahi taala bàyyi leen xale yu góor yi. parce que mbay ci biir wax ji imagine ndaxte nee na. Mhm. jour bi muy avorté daf ko wax jëkkëram. Mhm. mu message ko ni ko maa ngi dem Momo Dieng sa jabar avorté ñàkk. non non loolu moom wérul ko da ko da ko doon rey est-ce que pare damaa déggoon parce que man bi ma déggee ñu ne ndaxte am na jëkkër la sama xel ñaaw man man xaw ma ndaxte du ma moom xaw ma ko yoruma numéro mais bi ma ko déggee laa ne ñu ne ma ku tudd Mario kii ak kii bi ma bi ma tegalee dossier bi rek laa xam ne. ma kii est-ce que seetaat na jëkkër ji. Mm-hmm. c'est que les gars ñu xale yi jigéen yi siiw yi il faut ñu xoolaat seen bopp parce que xale yi góor ñi dañoo mystique dañuy dem góor ñi xamante ne dañuy dóor ko dàqe yi góor ñi nga xam ne amuñu palpe amuñu place dañoo mën sëriñ. Mm-hmm. comprendre nga dañuy dem si sëriñ ñu ne takkal ko siiw soo ko takkee ndaxte xoolal xoolal xoolal xoolal dafa takk takk ndaxte rek siiw. Mhm. dafa takk ndaxte rek siiw loolu sëriñ la koy digal. Mhm. ne la takkal ko siiw xale bu jigéen bu siw soo nekkee moom da ngay yëkkatiwu léegi xale yu góor yi xale yu jigéen il faut ñu am mentalité ñu siw ñi comprendre nga il faut ñu am mentalité teg ko si kot soo demee ba siw nii bu la dara këf waaw siiw dafa metti la nga doo am oto soo amul oto dangay kii xam nga da ngay jànnaxee soo yorul xaalis soo yorul si yorul loo sañsee si doxaan bi dañ lay jënd xam nga si doxaan bi lañ lay jëndee comprendre nga mais ñii Mario dalul sama xel mais mais mais li jaaxal ñëpp mooy par rapport ak ndaxte li nga xam ne doon na ko dund ci biir ah. néegu sëyam alors alors bu ñu xëyee gis waa ji mu nekk ci soirée di maye. mu yorul yorul loolu ku yor du ko def kooku kook du yore yow lan moo tax ma ñaata ñaata ñaata ñaata nit ñoo nekk si si Sénégal ndaxte euh, Mario musuma gis ku ku mu dimbali hôpital musuma gis ku ku mu dimbali si si si koñ yi musuma gis ku mu jox lekk lekk na la lekkal boîte ba baar ba kii boîte ba baar ba boîte ba boîte rek lay maye koo xamante ne boîte rek lay maye soo ko nee yaruwul kooku yaruwul yaruwul ba pare nekkul si dara musuma gis papa ji musuma gis yaay ji mais soo ko waxee mu ne sam damaa judd si la alal liggéeyoo gontoo yéen lan lay liggéey man koo xamante liggéeyul dara ah liggéeyul dara barki démb tase naag rakk ji fii moo yor oto bu oto oto bi rakk ji rakk ji sax ko gën a simple simplul te booy bi simplul la gaa laa il est très il mal simplicité nii nii de simplicité Mm-hmm. il est gars là le gars il est indiscipliné. Mm-hmm. le gars il est incorrect incorrect. le gars là le sécurité suy kii dox di yor ay garde corps la gars là il est seulement oh. <laughs> dama desi billahi dama desi le gars là. ma jaaxal mooy euh, ndekete jigéen ñi ñu ngi dund lu bari seen néegu sëy alors que tey nan nga mën a bàyyee sa jabar moom dong ci néeg. yow nga dem ci ay boîte. mais loolu du yoon loolu du yoon ndaxte da ko waroon topp sax da ko waroon topp ndaxte si boppam da ko waroon topp ndaxte ana ay parents ay yaayam ana ay papaam déedéet nu mu ci kii yooyu xoolal ndaxte avorté avorté si xale bu ndaw moo tax ndaxte ngi jeex a jeex a jeex a jeex a jeex ndaxte i day jooy rek ndaxte kenn xamatul ak a mënoon way yàq na carrière booy bi yàq na carrière booy bi <laughs> booy bi booy bi yàq na carrière yàq na carrière booy bi booy bi il est talentueux ah ndaxte presse aar la nekkoon ñu def si moom talent ah mais fi mu nekk nii xalaat naa xalaata xalaata xalaat ba bant léegi barki démb gis naa ko si kii ouverture ko jëb bi mais xàmmeewu ma ko journaliste yi ko ti ma naan kii kan la kii kan la ñu naan ma ndaxte la man dama yëngal sama bopp ne kii il est kii il est souffrir vraiment il est ndaxte ñi ngi sa ginnaaw ndaxte dénk naa la yàlla ndaxte dénk naa la yàlla kii ku bon la ndaxte kii ku bon naa mi ngi voyagé na nag mais démb laajte naa numéro mais après naa ko woo. lan mooy problème bi lan moo tax mu mu def lii il faut mu woo ma su ma waxee contexte yi nag man naa la woo nga ñëwaat fii su ma nee ko li nga def ndaxte lan moo tax nga def ko ko. man su ma waxee lan moo tax man naa la woo génn def sorti guy. Mhm. incha allah maanaam sénégalais yi li leen jaaxal mooy. tey bu ñu gisee nit muy affiché wu ci kaw. non du dara du dara kii il est ko booy bi booy bi booy bi kenn xamul fu mu jëlee xaalis booy bi liggéeyul day taxawaalu rek booy bi liggéeyul day taxawaalu rek. fan yii il paraît que na euh, Sidi. benn waay yow waay micro or lan micro boobu sax du or ndekete naxaate kat la fii micro boobu du or ndekete Sidi Diop sax xam na ne du or. booy bi il est ba pare bërki di keroog mu demaat si waa euh, si waali waali kii ko muy wut booy bi daal xam nga lu ma ko neex ay affaire de way ñu koy way ñu koy way fii di ko way fii booy booy bi il est tardable quoi dafa tardé quoi ah yow li ngay maye doo ko jox sa jabar ah di mayee di mayee di jabar sa jabar ah dungur yi soo nee kii amul liggéey dungur yi wër la hmm? naan kii dafa teral yaayam ak dafa teral baayam ah déet weer na la nag yàlla weer na la yow sa yàb jabar am na rakk bu simple moom moo simple am na rakk bu simple rakk ji tase naa moom fii barki démb mais rakk ju simple la am mais moom moo simple bi bu légal il faut mu defaraat tamit booy dem na dem na France xaw ma Italie man man booy booy booy xaw ma lu muy liggéey quoi booy lan lay liggéey buuy bi lan lay liggéey man laa xamul. mais yu mel nii est tamit du tax nit ñi xaw a ragal. yéen non non ragal leen xale yu jigéen ñi bàyyi leen ñii. Hmm. bàyyi leen booy yi nekk si boîte yi di taxawaalu tey ñu yor ran suba ñu yor R4 suba ñu yor ah ma kii bàyyi leen booy yooyu yoruñu bàyyi leen booy yooyu booy yi ah, di màcc tuñ mm, meles suku ah di yëy si ngom di fen rek ah, nekk ci xuute di fen fen nañoo fen a fen a fen booy booy. non booy sama xel jeex na ko guy gi. bi nga ko déggee par rapport ak euh, Mario mi ngay gis ndax amoon nga yaakaar ni moom. amoon naa yaakaar parce que il est booy bi il est énervable il est dafa booy bi day ay énervé booy bi man mi ko dëkk dëkk film ñaari yoon ne ko lii ak lii li ma tontu bët ki dem saaga na journaliste yi. Mhm. saaga na dégg nga li dégg nga. dégg naa ko saaga na journaliste ay fenkat ngeen. Ah? lii ak lii ak lii booy bi lii il est il est indiscipliné il indiscipliné journaliste yi ñëpp la saaga ma tiimal ko micro mu ne da ngeen di fen fenkat ngeen ah yow moom sa papa ma ne ko foo jëlee xaalis mu ne sa laaj ko sa bàyyi non lii bu booy indiscipliné mhm. indiscipliné vraiment tey ndaxte dégg naa la yàlla. d'accord ndax tey yaakaaroon nga ni. waa ji par rapport ak ni nga ko jegee ak ni nga koy filmé ak ni nga koy gisee soirée yi dina dund ak lu mel nii soxnaam. bett na ma nag bett na ma trop parce que demoon naa ba koy ba koy fan parce que dëgër fitam ak gërëyee xam nga man damaa bëgg kur gërëyee parce que gërëyee la parce que gërëyee la li ma tontoo man xam nga ni ku ma ku ma jàq di ma wax yéen yi ma xam ne gërëyee la ku ak di question yi parce que man par question laay laay lay laay laay demee. bi ma déggee ñu ne ma biñ ma woowee ne ma laaj ko lu muy liggéey dama ko ne looy liggéey mu yàq ma kersa ne ma laaj ko sa baay lu muy liggéey ma ne foo jëlee xaalis mu ne damaa juddu si xaalis liggéeyul xam nga liggéeyul kon xaalisam liggéeyul xaalisam day taxawaalu day wër di di di di di taxawaalu ah? booy bi booy bi est nekkul sax si xale jigéen ñoo koy may xaalis booy bi est-ce que nekkul si xale jigéen sax ñoo koy may xaalis booy bi sama xel si moom booy bi est-ce que nekkul di di mbaraan xale jigéen ñu ñu ñu ñu koy may xaalis booy bii sama man man man man xaw mu jiree xaalis boo xamante ne chaque samedi nga ñëw chaque samedi nga ñëw maye lu ma un million chaque samedi xool li mu may waali keroog ah non booy bi bett dama trop ah bi waroon naa tëj téye jabar ji quoi waroon naa téye jabar ji ah booy waroon naa téye jabar ji de leeral ñu defal vidéo leeral ñu lan moo tax téyewoo sa jabar faut nga leeral ñu de non man man man man guy gi. d'accord am na solo ah mu doon point boo xam ne nag mën nañu ci woon bañ a ñëw mbay ma déggaat tamit ñu ni Momo Dieng dafa divorcé par rapport ak yow mi nga xam ne jege nga ko démb gis naa la soirée dëgg la wala du dëgg. faux information la sax amee daa daanu. Hmm. waaw Momo Dieng jabar dégg naa mi foofu dem dégg naa Momo Dieng jabar ji dem moo taag reer xaw ma démb rek woo na leen moo def appel vidéo xaw ma appel vidéo la def ba Momo Dieng di wàcc ci soirée bi xam nga man damaa def information laa topp ba ci biir oto Momo Dieng ma ne am sa jabar wool sa jabar wool sa jabar Momo Dieng tàppe jabar ji appel vidéo woo ma woo ko ma gis appel vidéo mais dama ko bañ a filmer xam nga Momo Dieng mënul mënul coow mm-hmm. mënul coow mënul dara mm-hmm. ma ne ko indi ma ko mu bañ non c'est mais c'est bett dama nag mais si Ahmed Cissé si dama trop non Cheikh Ahmed Cissé day dëgg lu ngay déconné quoi loolu lay tas looy looy looy looy looy kii looy tas jabar jàmbur non non booy bi dafa nekk si bësam waay ba bu ko yàqal waay tamit. borom àndalaa buri. waaw borom àndalaa buri buri yàqu na bu yàgg yow nga nga nekk si internet bi di wax Adamo xam nañ ne yaa gën a xew Adamo mais bul fen bul wax non bul tas bul bul bul bul xewul booy bi waay. boo xewul booy boo booy bi jabar jabar jéng fi ba tey booy bi jabar jéng fi ba tey billaahi tasul billaahi tasul tasul de. Hmm. oto bi oto bi ndekete moom moo jee moo ko jëndal oto bi moom moo jee moo génnee xaalisu kaseem jëndee jëndal ko boppam comprendre nga xam nga man maa njëkk vidéo oto bi dugal ko ñu ne ma Doro Gueye moo ko jënd man xoolaat information yi ñu ne jabar jee ko jënd. ma xoolaat information yi ndekete moom moo ko jënd non sénégalais yi dañuy déconné Cheikh Ahmed Cissé yaa Cheikh Ahmed Cissé bàyyi bu booy waaye mu dund succès quoi. Mhm. Ah, booy mu ah, quoi. booy bi booy booy ah bu tasul quoi. d' accord ah. Mbaye fi may jeexalee. ñu laal sa patron. Aziz Ndiaye génn am ay révélation yoo xam ne wax na ko ci titre roi des arènes. ñenn ñi jàpp ni innovation lamb la ñenn ñi jàpp ni dafa soxore Modou Lo roi bi par rapport ak démb sorte bi nga xam ne Siteu def na ko. non non Aziz gars yi dañuy nañ def attention parce que Aziz bi mu waxee loolu man si suba si si suba si dégg naa muy wax ak Modou Lo nañ def attention de waaw parce que Modou Lo xaritam la xaritu Baye Ndiaye la. Modou Lo xaritam la nañ génn si yii barki dem gis naa këcëb dem stade gars yi di ko yuuxoog yooyu ndax titre roi bi de titre roi bi nañ bàyyi yooyu. Siteu tamit dafa teel a génn Siteu tamit nan mooy génn tax a génn génn Siteu doo waajal sa combat ngay génn di wax buy Siteu waajal sa combat nga génn di wax ngay génn di toll Aziz tamit ah doo amati combat de Aziz mi kii Aziz après mooy mooy bàyyi mooy téye làmb yi waaw ñun ñun. ñun defuñ kenn yooyu de sama xarit la nag Siteu sama xarit la mais mais booy booy Siteu bul déggoo quoi. mais est-ce que jàpp est-ce bi la ko soxoree te li mu. non non Aziz billaahi soxor roi bi Modou Lo billaahi wallaahi tallaahi non mu jël moo moo moo xaw moo ko xaw a jaaxal quoi. Mhm. mais moodloo noonu la mu doon def Modou sama xarit la tamit xam nga Modou Lo ku baax la comprendre nga mais bi muy jël bi muy jël bi muy jël kii. Euh, Siteu fekk loolu la wax Aziz dana ko bu muy jël Siteu fekk ñëpp am nañ combat comprendre nga parce que Aziz na ko lu tax lu tax def naa daal si si parce que man dañ doon téléphoné mais kàddu yooyu dégg naa ko dañ doon waxtu daan moom mu ne ko li nga jël boo dangaa waroon roi bi dafa yomb comprendre nga Siteu bi nga jël moo yomb loolu nag la ko doon kaañoo quoi moo ko doon kaañoo quoi hmm. mais mais bu ñu fàtte ne uni seen affaire yoobu noonu ñaari kuréel la mooy affaire kii bi kii kii loolu dañuy def. waaw ñaari kuréel la. bët ki démb xaw ma lundi bi passé lañ doon def def football lañ doon teg ñaari kuréel yi. Mhm. waaw gars nañ bàyyi yooyu quoi. Mhm. waaw Aziz fu leer wax fu leer la ko teg. Mhm. comprendre nga mais da doon noonu rek mais Aziz xam na ne ku xam xam ne làmb lay défendre xam nga du wax luy yàq làmb day ruube quoi pour jaay affaire am yi. comprendre nga nañ bàyyi yooyu mais gis naa Siteu nekk gën a yokk coow léegi. xam nga Siteu na dem entraîné yi xam nga na dem entraîné yi xam nga combat royal la lay kii na génn dem États-Unis wala feneen xam nga bu mu defati ay vidéo bu mu yee coow comme naan nga coow lii nañ ko bàyyi si man Pawlish ak yooyu yooyu waaw waaw. d'accord ay ci am na solo mu ngi noonu mbay looy tàggatoo. waa di jéem jaajëf waay di jaajëf te di waa di wax lancer message xale yu jigéen yi xale yi jigéen yi nañ bàyyi xale yu góor ñi ñuy topp. comprendre nga xale yu jigéen yi xale yu góor yi yor ay ranz yu moomuñu ranz bi billaahi ba guy gi barki Serigne Touba gis naa ay directeurs yu bëree bëree bëri ñu ngi si dëkk bi naan ay kii billaahi moomuñu oto yi billaahi wallaahi amuñu oto amuñu oto amuñu nekk nekk ak saldabee la ñuy yor billaahi wallaahi talaahi barki Serigne Touba billaahi fii ñu fi ñu fi am engagement ñu fi yor engagement bëriwul de dañuy fenn billaahi wallaahi talaahi oh xale yu jigéen yi yeewu leen genre Mario yi bëri nañ ci dëkk bi genre Mario yi bëri nañ ci dëkk bi baax na genre Mario yi bëri nañ ci dëkk bi. d' accord Aïcha mu ngi noonu vraiment ndaxte sunu sister la ñu ngi koy encouragé bu baax a baax di leen jaajëfal di leen jox dig daje suñu yeneen émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf.